particuliers avec les professionnels si vous voulez le professionnalisme le confort la qualité et la sécurité venez voir notre agence immobilière Prévision Immo Wow, cette entreprise est gérée par un jeune travailleur engagé et déterminé au nom de fort l'agence Prévision Immo est focalisée sur deux domaines à savoir la transaction immobilière et la promotion immobilière pour la transaction immobilière il y a la location la vente et l'achat concernant la promotion immobilière l'entreprise sera le maître d'ouvrage c'est-à-dire le réalisateur du projet ne ñun defal 33 927 43 07 wala nga 77 890 30 avec l'entreprise prévision immo votre bien au juste prix dañu ñëwoon tey fii pur pour euh, assister ci finale yi nga xam ni académie Thiès mi ngi ko waroon a def depuis daw mais ñëpp xam ni jafe-jafe yi nga xam ne jànkonte woon nañ ko daw ci fin wu année scolaire bi moo taxoon euh, kilifa yi laajoon pour ñu taxawal compétition yi ñu doon organiser moo dañu at mu nekk bu ñu ñëwee balaa compétition yi di commencer ñu def ouverture ci cérémonie bu mag bu daan def moo tax nag final yi ñu waroon jouer daaw ñu indi ko ren pour euh, non seulement engagement yi ñu amoon ak xale yi parce que li ñuy def lépp njariñu xale yi la ci biir daara yi ñu respecter engagement yooyu mais aussi bu ñu jógee ci loolu ñu ubbi ñoom saison bi nga xam ne mooy 2023 2024 compétition yi ñu waroon a def loolu moo taxoon ñu ñëw lii tax ñu gën cee sawar aussi mooy cees dafa ràññeeku ci doxal bi ñuy doxalaat tàggal yaram ci biir daara yi ndax dafa amoon ay jafe-jafe ci at yu bari mais depuis 2015 ministère éducation ak ministère des sport lëkkaloo def benn kuréel boo nga xam ni moo li ñu ko dénkoon mooy pour mu fexe ba sport bi dellu si waat ci biir daara yi résultat yi ñu am nag dafa am solo ba nga xam ni moo tax kilifa yi gën a mag ci réew mi muy njiitu réew mi créer li ñu wax fédération sénégalaise du sport scolaire bi nga xam ni moom lañ ñu dénk ñu koy doxal nag ci ci biir réew mi yëpp am na fukki région euh, ren euh, fi ñu toll nii fukki région ak benn yoo nga xam ne installé nañ fa seen ligue académique am na juróomi région yu des ñu ngi liggéey pour ñoom tamit ñu installé ko euh, li ñu bëgg daal mooy tàggat yaram bi dellusiwaat ci daara yi ndax li ñu seetlu mooy bi sport génnee ci daara yi xale yu bari dañu génn aussi ci daara yi ndax léegi bu ngeen seetloo parents d'élèves yu bari dañuy am yaakaar ci seen doom yi nga xam ne dañu am yenn prédisposition yi physique maanaam dañu am euh, ràññeeku ci tàggat yaram ku ci nekk bëgg nga am benn Sadio Mané sa kër bëgg nga am benn Idrissa Gana Gueye et cetera kon ñoom dañuy xiirtal seen doom yi ci ñu dem ci sport kon bu ñu fexee nag ba sport bi dellusiwaat ci daara yi daf ñuy dimbali bi nga xam ne xale yi jàng dinañ leen téye ci biir école bi ñu am ñaari chance benn bi mooy ñu jàng pour suba ñu tekki am métier mais aussi ñi nga xam ni yàlla may na leen ay dispositions yoo xam ni yamul ak euh, li ñëpp am bu fekkee ni yàlla jox na leen ay prédisposition ci sport ñu tàggat leen tamit mais jébbal leen fédération sportive yi nga xam ni ñoo fi nekk pour développer sport yooyu. moo tax aussi ñun ñu ngi tàllal loxo fédération yi fi nekk yëpp pour liggéey ak ñoom pour que xale yi nga xam ne dañuy génn ci biir école yi ñu mën ñoom tàggat leen pour muy nekk njariñu Sénégal. loolu nag ñi ci gën a ràññeeku mooy fédération sénégalaise de football ndax ñetti at a ngi nii ñu ñuy gunge ñuy def benn finale nationale ci xale yi nga xam ne ñoo génn ci académie yëpp. loolu di ñu permettre ñu génne ñaari équipe benn ci xale yu góor yi benn ci xale yu jigéen yi muy dem ci li ñu tuddee championnat scolaire africain loolu nag am na njariñ bu mu ñu jural ndax am na jumtuwaay yu bari yoo xam ne ñu ngi koy def ci biir daara yi te ci fédération boobu la jóge fédération boobu tamit am na lu ak ñoom muy benn projet bu wax bu euh, FIFA football for school. projet boobu formé nañu ñi def dañu defaat benen démultiplication samedi ak dimanche bii di ñëw fépp ci Sénégal xañ nañu ñëw Thiès ak waa fédération pour def lancement bi fii ndax euh, li ko tax kamni monekon mooy dañuy jàngal xale yi jikko yu yi nga ñun ci suñu société ci suñu aada ak suñu cosaan loolu la ñuy jàngal xale yi mais ñu jaarle ko ci football parce que xale da nga koy fekk ci li mu bëgg nga tàggat ko ci loolu pa jàngal ko yow li nga soxla kon muy ay compétence de vie yoo xam ne dañ koy jàngale mais ci football lañ koy jaarale loolu nag am na ñaar téeméer ak ñaar fukki école yoo xam ne tànn nañ leen ci Sénégal département boo dem ci Sénégal lu ma bon bon am na ñetti écoles yu ñu fa jël écoles yooyu la ñuy commencé projet bi projet bi bu ñu formé jàngalekat yi ba pare bu ñu jógee feetu Noël incha allah dina dina dina démarrer te yaakaar nañ tamit que ni yéen presse bi ak jumtuwaay yi ngeen kii di ngeen ñu jàppale ba aussi ñu ñu ñu jottali loolu nga xam ne moom la ñuy jàngal mais jaarale ko ci sport amna tamit projet yu mag yoo nga xam ni Nations Unies dañ ko am ak comité international olympique muy euh, lutte contre la délinquance mais par le sport ndax ñëpp xam nañ ni ci daara yi ak ci suñu société bari na xale yoo xam dañoo jàdd yoon ñu nii nañu xool nu ñu xalaate ba jubbanti leen ñu jaarale ko ci sport loolu tamit ñu ngi ciy liggéey ak ministère éducation euh, ci tamit li nga xam ne moom lañ tuddee ñun euh, éducation aux valeur ñu ngi ciy bëgg liggéey tamit mais jaarale ko ci sport ba en tout cas dugal ci bopp xale yi lépp li nga xam ni moo gën ci taxawaay bi ñu war a am ci biir askan wi. ni ñu ko waxee nag finaalu daaw la mais ñu def ko ren parce que école mënul euh, société la en miniature maanaam dëkk la. ci ndaw bu ndaw daal ndax ku nekk daf fay daje tey dañu yor ndongo yoo xam ne dañu war a téye seen protection ak seen sécurité ba tax na daaw contexte bi mu demee woon ñu tënk taxawaloon lépp ren nag ñu yëkkatiwaat ko donc yëkkati ko ñëw fii eh, ci stade Maniang Soumaré mais cees dafa am lu mu am lu wuuteeg ñeneen ñi lu ñu am maanaam Thiès dafa am école bu nekk ci biir cees boo xam ne école institut national la sax naam waaye cees la nekk institut bi euh, da fay dalal ay xalé yo xam sen beut dafa dafa euh ak ño xam sen gis-gis euh, leerul donc euh lolu téréwul ñu jouer ci sport scolaire di def ci compétition yi comme sen mawami lolu nak nek ñun lo xamné dañ koy fessel fu ñu toll ñu tuddé ko ceci foot nga xamné ñom dañ dañu fi jouer football def sen finale am sen coupe ñu rafetlu ko rafetlu ko ndax euh, dàquñu leen ndax loolu ndax njàngale sax ministère éducation nationale jéego mi ngi koy teg ngir xale yi ak laago boo mënti am nga bokk def lépp li say morom di def ndaxte football xel la euh, bët bu muuru ak nga am beneen laago warul tere nga mën a def sport. Euh, tey jii nag ñuy fàttali ne sport dafa nekk loo xam ne mën nañ ci jaar ngir defaraat nit. booy seet nit l'humain moom moo nekk au cœur du sport donc euh, te nit boo koy tabax da ngay def ci moom ay jikko yu baax ay ay qualité ay valeur te valeur yooyu war nañ déjà boo ne sport rek mu nekk football wala leneen nekk na jeu yoo xamante ni dafay tax ay nit ñooy booloo di passante ay bal donc maanaam ku ci nekk da nga indi sa rafetal sa nekkin ci biir terrain bi ngir ngeen mën a am ndam ku ñaawal sa taxawaay

ndax euh, jigéen ñi tamit joué nañ fi seen final ñu nekk ay xale jigéen yoo xam dañu xarañ euh, yoo xamante ni am nañ équipe mm, féminine am équipe masculine boo xamante ni dañu demoon daaw ci ay jongante équipe bu jigéen ñi nekk vraiment ñu ñuy jox ndam tey jii ñu koy rafetlu di wane ni que égalité femme homme bi ñuy wax euh, génn na salle de classe yi waaye ñëw na ba ci terrain yi déjà daaw équipe nationale féminine bi ñu amoon Sénégal wane na ni tey jii kat ñun école war na mën a jox. équipe nationale ay xale yoo xam dañ leen a tàggat parce que tam nit boo ko bëggee def ci moom euh, xam-xam da koy door ci bi muy nekk gune te sport scolaire bi nekk na loo xam ne dina leen tax ñoom ñu tàggatu ba tey ji bu ñu bëggee jëm ca kanam football bi ñu njariñu ci jariñ ci seen i waajur c'est bien possible te ci école lañ ko mën a dooree incha allah.